yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw gaaw abonné te activé cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service du Saint Coran. A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. Bismillahir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 bokki jullit yi bokki taalibe yi ñi ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam aku santam. pour daara ji ak sëñ bi. daara sëñ ji nga xam ne daara yi alxuraan la di daara yar ñu tudde ko ak Cheikh Salihul te sëñ Mountakha Diop nekk ca kanam ak ñi ko àndal ñëpp. ñi ngi leen di nuyu kenn ku nekk ciw turam ak ciw santam di nuyu kilifay jataay bi nag jotuma am liste bi waaye kenn ku nekk maa ngi koy fekk fa mu nekk di ko nuyu te di ko siyaare bu baax xam naa kuy jëkkanteeg fukki minute ak juróom nag bu ca benn minute dañee fukki minute ak ñeent da cay des kon dañuy dugg ci waxtaan wi mubasharatan ci tomb yi nga xam ne bokk yi sàkk woon nañ ko ba ca jiitu mooy li ñu dajale fii di baatub daara di baat bu yaatu bu ñépp bokk sëriñ bi ci daara ji la bokk soxna si ci daara ji la bokk jàngalekat bi ci daara ji la bokk donga bi it ci daara ji la bokk ki leen ñeenteel mooy ki yëg daara ji te bëgg cee boole boppam ak fa mën a ne kon ñooñu ñëpp kenn ku nekk da ngaa am sa waru gar woo war a gar gar nag xam naa boo ko waxee léegi dana doon luñ xamul ab dog la bu ñuy soq waa mbaa ñu di ko war wal ku ko def nag wàcc nga waaye ku soqagul wala goo wàcc goo loolu mooy gar sama waru gar mooy li ma war a def door a am sama jàmm alxuraan mi ngi dajale fii nag mooy tomb bu njëkk bi bokk yi sun boroom bi muy wax naan ab téere la booba doonagul téere bu ñu bind bu ñu xam dhalika alkitaabu la sun borom wax te booba doonagul ab téere ndax booba arab yi dajalee guñ ba mën a bind alquran ji kon su borom naroon na mu doon ab téere bu yàgg ab téere junj gi mu ciy junj balaa mën a doon ab téere dañ koy mokkal suñ ko mokkalee bind ko mu door doon ab téere kon alxuraan bi suñ borom bëggee ñu bind ko mokkal ko daf ko tudde loo xam ne da koo bàyyi ci sunuy loxo muy ñu war koo mokkal war koo bind laa rey ba benn tubaab gëstu na alxuraan ba yàgg mu gëm yàlla ci baatub laa rey ba ndax lan nee na ñoom bindkat yi bu ñu bindee am mbind ba noppi dana am sikk bañ bëgg a dab dabaatal mbind moomu wala ñu dab dabaatal ko te lu téere ba gën a yàgg ñu sey gën a gis ay sikk yuñ bëgg a dab dabaatal sun borom di bëgg a def ab téereem nag defagu ko sax ne la téere bi amul sikk nee na vraiment loolu du waxi nit daan ne ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la kon ñàkk gi alxuraan ñàkk sikk nag tuuti rek laa ciy joxe ay misaal te jàll ñun ñëpp xam nañ kañ daan wax Socrate Platon Aristote Kant al alimul almaani ak keneen ku dul ñoom ku mu ca ñoom lañ bindoon tey ci suba ba léegi buñ ko doon nettali rangoñ du toq ca ka koy nettali waaye gone yu ndaw yi xamaguñ lu yàlla wax xamaguñ yàlla mi wax ba noppi di jàng di jooy question boobu moo lay xamal ne la lii bu ko mbindeef waxoon mënut a jooyloo gone gu xamut li ñuy wax soo ko weddee nga romb léegi ay pël yu ñuy làkk mbaa ay bambara yu ñuy làkk te xamoo ko boo fa yendoon ba ngoon doo kon nag gone yi toog fii di jàng di jooy li leen di jooyloo mooy lu niroog la borom xam-xam ba waxoon ca alxuraan dafa ne li tax ma xam ne téere bi yàlla la ñi koy jàng te xamuñu lu ñuy li muy firi dafay jeexital ci seen xar kanam yi ba boo leen gisee xam ne ñii niti yàlla lañ nitu yàlla nag bu fekkee xamul làngu yàlla ba noppi niroog yàlla kon la ko boole ci mu nekk yàlla loolu mooy alxuraanul karim mag ñi dañ daan am hayba respect dañ daan am waqoor koo ci gis da ngay bëgg a daw te yàlla xam na ne boo demee mu mu xamuñu sax luy ida shams lu muy tekki waaye tasir bi effet bi muy effet ci ñoom moo leen di yóbbu ba ñuy niru ak nit yàlla ñoo xam ne danga nga naan kii xam na li yàlla wax lépp loolu nag buñ ko tënkee loolu mooy alquran premier point ñu war koo jàngi fa lawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi ddin ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون aaya bii ma jàng moo ne na am ñu jàngi moo ne buñ dikkee nañuy jàngale moo ne nañ am ñuy jàng ñun jàngal ba buñ ñibbee seeni kër mën a waar seeni morom kon alxuraan programme na lépp kon moo programme boppam daara bi ci des sun borom teral gim teral alxuraan lu yomba dégg la ci benn aaya ci suuratu rahmaan arrahmaan kooku tur yàlla la allama alquran yàlla nee na moo xamle alquran xalaqa linsaan moo bind nit allamahul bayaan xoolam bi tartib ku ko xam xam ne teraangay alquran moo tax ñu tëgg ñu njëkk ko tudd ci bindug nit waaye normalement arrahman xalaqa al insaan allama al quran yàlla moo bind nit jàngal ko alquran déedéet daa njëkke jàng door ñëw ci bindug nit arrahman allama al nga xam ne importance bi alquran am moo ëpp solo ci lépp moo tax mu jiital ko ci bind gim bind nit arrahman allama alquran xalaqa al insaan bu bu doon mën dama naan arrahman xalaqa al insaan allama alquran ndax nit ko dañ koo bind ngir jàngal ko alquran waaye tiraangay alquran ak màggaayug jàng alquran moo tax ñu jiital ko ci bind guñ bind nit kon gone gu ndaw toog ci suba ba léegi di tari lu rëy la dafa am benn waay bu doon wax ak keneen ku nekk ci jeneen diine ne ko yéen seen gone yi da ngeen leen a sonal waxtu nekk ñu ngi jaabante ka jàng ñu leen di duma rek mu ne ko waaw waaw suñuy gone dañ leen a war a sonal ndax dañoo bëgg a mokkal seen téere borom ba noppi doore am ay bac ak i BFEM kooku koy def do amoo jot ku bëgg a mokkal juróom-benn fukki isib yii doore dem wuti bag wuti licence bu sa papa sàgganee ak sa yaay rek nga perte lépp. moo tax mu ne ko kon nag ñun sunuy gone bokkut ak seeni gone yéen ay testament ci ngeen di sukkandiku testament bu la neexee nga wax ko ci séeréer bu la nga wax ko ci olof ñu naa ah ñu ne noonu nag alif boo ko sadda boo ko fàttee sadda sax ñun la yàq nga ko dalika alkitaabu laa rayba waqfu bi dañ la koy respecté loo ci ban riwaaye nga yor googu gone du gone guy nekk ci àll bi di réer yaayam ak a feeñ ak di tooñ baayam mu ne ko nag sunuy gone ñun amuñu jot kon gone ak lislaam amul jot ba ca des buñ taxawul ci sunu alxuraan ji te taxaw nañ ci nag dana am lum juraloon yeneen diine yi fi jiitu woon dafa am benn waay boo xam ne dafay xool rek waxtu bu nekk kenn ku nekk ne ko nu ñoo ne ci dëgg waaye daal booliwu ci coow dafa jël ci tawreet dara jël ci injiil dara jël ci zabuur dara jël ci alxuraan dara bu ci nekk mu yokk ca wàññi ca ne nag xaar ma seet borom téere yii ba xam xam nañ seen téere yéem déet njëkk a ñëw ci kër geneen ki nga xam ne ñoom ay église lañ yor laajte ñu war ko borom église bi mu wan ko ne lii de daa bokkoon ci injil mu ne ko waaw ci la de mu daal di lem def ci poosam dem ca borom zabuur nuyoo ñu wan ko kilifa ak diina jooja mu ne lii seen téere bi la bokk mu jàng ba egg ne ko waaw ci la mu def dem ci poosam ba ñëpp daj ba mu des sëñ daara ba ba mu ñëwee ca daara ja fekk sëñ daara ba génn mu ne kon maa ngi ñibbi ngóor si ne ko lu mu doon mu ne ko damaa yoroon lu bokkoon ci seen téere bi doon ko laaj ba xam ci laam du ci mu ne ko ma gis xale bi ne ko lii ci la lii du ci lii ci la lii du ci te lum ku ne du ci rek waxi boppam waaj daal di yuuxu daal ne wallahi laa yatihi albaatilu min bayni yadayhi wala min xalfi tanzilu min hakimin hamid téere bu wér a ngi ni téere boo xam ne ak gone gu ndaw laa dajeel mu xam la ca bokk xam la ca bokkul ñii rek ka nekk ci dëgg daal di tuub dugg ci diine loola lañ ciy jàngate sun gone yu ndaw yii bés bu ñu leen sàgganee ba topp xalaati réew mi gis gis-gisi ONG yii ba fexe ba gone yi jàngatuñu alxuraan suñ demee benn siècle ci kanam loolu danañu dal nun ñëpp gone bu toogee di jàng alxuraan rek jaaxal na seytaane jaaxal na bi yàqkat su noppee jàng alxuraan rek seytaane bég na ab yàqkat bég na kon boobu responsabilité kan ci nun man min naa moo ñemee jën jël gone gu judd ci diine màgg ca am xelam ñu waajal ko ba muy xel mu nar a xam way juram di saggan wala muy topp maas wala muy nirul nirulu keneen ba jëlul doom jooju jàngal ko boobu responsabilité ci kanamu sunu borom ku koy jël doo nit ku koy jël rek doo nit bu fekkee nàndate ngaat doo nit loolu moo waral iqro ñun sun sun sun sun diine daf ñoo yey diine joo xam ne lañ ci njëkk a mooy jàngal ku ca nekk te jàngoo laaj ko question bi ko tee jàng ban la diine joo xam ne liñ njëkk a wax sab yonent mooy jàngal te biñ koy jàngaloo dañ koo leeral li muy jàngaloo ne ko bismi rabbika alquran nga war a jàng xamal ko ne ko ki lay jàngaloo moomoom lépp allati xalaq xalaqal insaana min alaq fa mu tàmbalee nee daa sori mi ngi tàmbalee ci nutfa ci ci gut boobu toq boobu ki ci bijjanti ba nga mën a jàng jaarale ci ay maraxil muxtalifa ay étapes yu wuute kooku su demee bal na jàngal war nga jàng moo tax mu ne iqra bismi rabbika alladi xalaq na nga jàng sa tuuru borom mi bind xalaqa al min alaq mooy na nga xam ne ki jàngaloo moo moo la sos du ki lay jàngaloo moo lay fay du ki lay jàngaloo moo lay dundal di ko lay di ko lay jàngaloo dara ki lay jàngaloo moo la sos kon kooku weesu na di kilifa parce que mbaamu lay jox mbaamu lay dundal kii nag allazi xalaq ki lay jàngaloo mooy ki bind kon nag ci gàttal comme 14 minutes la 15 détail de desu ci mën a sori buñ duggee ci jàng nag fa ñuy jàngee fan la muy daara daaray alquran du kër kenn jullit yëpp a ko bokk jàkka du kër kenn jullit yëpp a ko bokk armeel du kër du kër kenn mooy cimetière jullit yëpp a ko bokk léegi nag soo gàttañ loo ci dem ca armeel ya buubu ko mbaa nga seyaare ji fa mbaa nga gàttañ lu dem ca jumaa ja julli ji mbaa nga ñaan fa mi ngi mel ne nga gàttañ lu dem ci daara ji jox leen ñoom ñiy jàng jàppale leen kon loolu asiya mushtaraka la ñëpp ko bokk lu ñëpp bokk nag moo tax yonent bi saa ne woon nanga doon kay boroom xam-xam mbaa nga doon kay xam lu mbaa nga doon këleen sopp tabul doon këleen ñeenteel këleen ñeenteel mooy ka nga xam ne xamul jàngul te bëggul ko xam nee na kooku këleen ñeenteel moom alkande da ko ñeel moo tax bul ko doon kun al-aalima aw al-mutaallima aw al-muhibba wala takun ath-thalitha fa tuhlika mu leer léegi nag ci boobu nga xam ne boobu mu boobu point boobu ki jàngale la ci benn waay waxoon lu am xorom nee na boo jëlee sa gone gu xamul dara dara jox ko ab sëñ daara bu amul dara dara te fekkoo ko fa jàppale ko ci dara dara su ëllëgatee boo bëggee xale boobu xam dara dara yaa gën a xam ne xale bi du xam dara dara dara dara daraam yooyu nag lu mat a seetlu la ndekete ab sëñ daara mooy nit na yow ab sëñ daara mooy borom kër na yow ñu koy jot facture courant ak ndox ak dépense ab sëñ daara mooy koo xane waat na ne bàyyi na bitim réew waaye seetul daa toog waat na ne dootu jël ci transport aérien bi dootu gi dem ci lu alxames ak ajjuma kon mooy ku dagg ay soxlaam bàyyi léppam te nag su fekkoon ne daa dëgg ay soxlaam bàyyi léppam ngir manqué xel nga teg ko sa fii kon nga mën koo manipuler wala muy ko bàyyi ay soxlaam ngir manqué xel wala ak mage waaye sëñ bee toog sëñ Mountakha Diop mais ku ko gis xam ne fu waay tëb dem mën na faa tëb dem lu waay defit wiisuugul mën na mën a def loola kon bu fekkee aqlu al aqlu ci arab mooy lu ñu rat bu poñee boppam ci asruq toog ànd ak ay nit di jàng ka jàngale sa borom kër di dem ak dikk sa doom di dem a dikk sa papa di dem ak dikk li ko tee dem te koo dikk jàppale ko ci te yàlla tax soo ko defulee rek wala yaas bi lay tax laaj ko ñeenteel koo ki nga xam ne moom bëggul deful defluwul danga ca doon kenn moo tax daara di lu war a jàppale kii toog nii noo bokk nekk ci daara Sëñ Saaliw ji defe naa 85 86 ci xabaan gii sëñ Saliou dafa joxoon ndigal waa tund jabaas taset ne leen dee leen togg di andi ci daara ji te bam ba ñuy togg di andi ci daara ji de booba magasin baa ngi fees dell la ak lépp luñ soxla waaye daf leen a xamal ne la alquran maanaam liggéeyal sëriñ bi day lu ñu war a jàpp kenn ku ne war nga jël sa dugal sa loxo loolu yi moo waraloon ñoom ñooñu di ay séeréer yu dëkk foofu bu jënti masaan so ñoom ñëpp dañu takk seeni sareet ñi togg ay tufe ñi toggi mbaxal ñi toggi cere andi ci daara ji léegi sëñ Saliou mooy nee na yoobu yàlla loxo bu ne daf caa war a dugg rek loolu ci li ñu am di tuuti nag paan te Sénégal mi ngi dox ci côté avancement bu baax ci jàng ak jàngale waaye nag côté finance bi dafa dafa dafa arriéré ba léegi si ab sëñ daara dañ koo limité ci affaire finance am na yoo xam ne waru koo am wala su ko amee génn ci sëñ daara am na yoo xam ne xelam waru cee dem ndax bu ko bu ko defee nekkatul ab sañ daara asafan loolu mooy andi njàqare yëpp da nga gis ko yore ay milliards di romb fii di dem otom di poussiéral fii mu defee ne moom liggéeyum ndey wala barke bàyyi wala ay pexe moo ko may loolu waa ji nekk fii ci biir ak xaleem yi ñoom dañoo tardé navra boobu navra duniya maanaam xool bu suufee boobu ci koo xam ne yow mi koy wax bu ñu la arrêté woon taxaw loola gone gi ne bismillahi rahmani rahim yàlla dana mere waa suuf bay bëgg a rësal asamaan ci seen kaw kooku dong moo la garanti dogon ko nag bismillahi rahmani rahim jooju gone gi di wax yaag sa oto beeg sa étage beeg koo xamoon mën ngeen a mel ne nalit nalit ñi segal xam nañ nalit bu tampon bi ci kaw fekkee tampon bi ci suuf li tax diw gi di am mooy dañ koy nag ba amatul sago loolu moo waral diw di génn ki tee nag asamaan fekk ki suuf mooy bismillahi rahmaani rahim yi gone ki mën a dindi merum yàlla ci kaw suuf mooy ko wax loo bismillahi rahmaani rahim yi gone kon ki ne bismillahi rahmaani rahim yi gone amul payoor waaye xanaa lu bon bon bu amul payoor itam nag xanaa doo ko xañ payoor olof dafay am lu muy wax amul desu mëneesu koo fay xanaa ab rëyaay tax waaye des na ki def dara nag des na ki def dara bés ku mënta fay nag lees mënta fay moo gën a cher luñ mën a fay gis nga alxuraan bi muy fay koor dana jusaaf la jusaaf mooy lan amul limite kon luñ mënta fay des koy fay ci jóor ca kaw te bañ a noqi ci poos naka di war naa fekk seen daara ci réew mi yëpp am ay dëkkukaay am luñ mën a transporter yu baree bari yoo xam ne ñàkk teg suñu sunu misaniya suñu budget ci yoon moo ñu xañal sunu sëñ daara ñuy sonn koñ bu ne du ma ne sax na dëkk bu ne koñ bu ne rek yàlla tàggat na fa fukk juróom yoo xam ne lu mu néew néew fukk ak juróom ñooñu buñ làmboon seen poos niñ ko war a làmbe buñ fayatul woon mun taxaamee ñaar dërëm it daara ji dana dox waaye ñooñu nag la yàlla yi wum nag ci daara ba nga dégg ñu naan may nañ diw 15 millions plateau may nañ fa 30 millions te duñu xam ne moos am na koy jàngale ci seen wet ku soxla woo rek 1 million. kooku lu mat a bàyyiloo xel nit ñi la nit mun ta fekk dara mu fal ko mu tourné waat di xeex la ko fal. ala sabil misaal tokki ab bànqaas ba noppi di ko gor mooy lu la fal ba noppi nga di ko xeex su fekkee alxuraana la fal su fekkee diine islam moo la fal ak num la fale war ngaa mooy ci li fal moo tax xam Seydina Ibn ne woon na kunna adalla qawmin fa a'azzana allahu bil islam fa ida talabna al azza bi gayri allah nee na ñun de amuñu woon benn pouvoir islam ma ñëw andil ñu pouvoir ñu falu bis buñ bàyyee islam mi ñu faloon daanañu folliku ëllëg kon nit li koy tax folliku war na koo daw bu baax a baax a baax ndimbal ci daara yemul fenn ñun ñi fii toog nii rek defe naa biñ laajee lu mu néew ne ëpp nañ 40 personnes 40 personnes bu kenn ku nekk génnee benn 1000 francs quarante mille la waaw bu kenn ku nekk génne woon 50 benn 50 000 ñaata la. te loolu niñ ko defee ci temps bi chaque mois wala deux mois yu nekk war nañ koy mën a def ñu wàññi dara waxtu ne yaa ngi jël sab xaalis léeg mu réer lu baree bari nga dégg na diw réeral na lu baree bari téléphone ba réer mu jëndee woon ko 250 000 ak yu baree baree wa qaridullaha qardan xasanan ji ustaas waxoon léegi gis nga sun borom yow miy leb daa xam ne leb metti na leb ruslu na yàlla ne la baal ma lebal la wax wa qaridullaha man man yàlla kaay leen lebal ma bu leen lebal waa ji kon nag yow miy bëgg joxe ginnaaw xam nga ne joxoo montaqa joxoo daara ji yàlla ngay jox dalay yóbbu ci nga am cawarte joxe bi ci desit mooy yàlla moo joxe appel bi neen jox leen ma ngir bëgg a teggil coono yi laaj jaamam bi parce que ab jaam ab nepp jaam buñ laajantee day metti yàlla ne ko nag léegi bàyyil ma laajal la nañ ma jox su ko defee yow sa rus gi nga doon rus ak kersa gi dañ mais ki lay bëgg joxe tam na xam ne man lay jox ba bu ëllëgee ma xam ne man maa fay wa qaridu llaha qardan xasanan xasanan ci qard dafa am yi xasanan yu muy bari ay tamyiz la tamis dana dugg ci alal su borom ne la alal ju rafet dana dugg ci bor mu tëdd la bor bu rafet dana dugg ci liggéey mu digg mu tëdd ko liggéey bu rafet loolu mooy lan kon amul lenn lu ko kooj amul lenn lu ca wurta dugg ba noppi dugg ci kon mbokk yi daara sëriñ Touba day ñun mooy sunu cëslaay bu ne mooy sunu cëslaay moom lañ yaakaar buñ delluwaatee ci dundam moom ci ñeenti point bu ko waxtu bi matee su dul ma def ko ñaari point koo xam ne yow ki nga yaakaar lim masa moom ci àdduna xam nga ko lim daan denc ci àdduna xam nga ko lim daan séq ak waa àdduna xam nga ko loolu lan la alxuraan képp la képp ku teg ku ne jox naa sëñ Tuubaa mu nangu na la leer ne alxuraan dong nga ko jox leneen loo ko jox dana danaa la tegal fee bu dee fasa yeewal fee bu dee saakoo tegal fee bu dee leneen a tegal fee boo boo ko tegee fee keneen ku ko bëgg mën la jëlal lee kon loo jox sañ Tuba yow li fi andi woon dala ko tegloo fee laalu ko te boo fa yàggee tuuti benn waay ñu mën ko jëlal lee est-ce kon sëñ Tuba laal déedéet leen nga ko daan ni yéen yi mu jël muy alxuraan boo nee jéy yi alxuraan mu ne ko cëfit taf ko ci dënnam nooyi nooyi gu kawe door koo denc lu tut kenn dootu ko gisati murit nag ku mën a tatone la tatone tey ji bu ñëwoon sëñ bi nee na nangam fii léegi nga gis ñëpp taq rip ca loola bu dee lu ñu war a fënd ñaqatooy xëpp bu fekkee lu ñu war a ñaqe la ndax lan dañuy sàkku ngërëmal sëñ bi di ko dabaw loolu lañuy wax sëñ Fallu waxoon na ko nee na waa ji sëñ tubaa kenn xamul luñ bëgg nun ñii di ay doom ak ak Baay Cheikh Ibrahima ñoo ñoo bokk yem kepp dañuy dañuy làmbut rek waaye sëñ Touba kenn xamul lu mu bëgg kon nag ki ngay bëgg a liggéeyal sëñ lu Mbàkke di doomam di ñaareelu xalifaam ne la sëñ Tuubaa kenn xamul lu mu bëgg nun ñii di ay doomam ak Baay Cheikh Ibra Fall mii ñoo ci yem dañuy làmbatu képp waaye xamuñu lu mu bëgg daane sëñ Tuubaa li mu moom waxoon na ko muy alxuraan rek ak ak yonent bi rek waaw kon nag damaa yaakaar ne bokk yi buñ koy làmbatu fu ne tam ne ci alxuraan nag xanaa mooy ñu koy seeti fenn tam nekk Cees ah, mantaqiyan sëñ tubaa kenn xamul lu mbëgg dañuy làmbatu sëñ sëñ Fallu wax ko nook suñ baa Seex Ibra ñoo yem ci sëñ tubaa dañuy làmbatu rek waaye xamuñ lu mu bëgg la mu daal mooy yàlla ak yonent bi ak alxuraan wala kon nag ahlu quran ñoom xanaa kon ñoom gëpp <laughs> ñu ngi ki la sëñ tubaa bi ki des sëñ Bay Jaxate ku ne xam ne ne jàngalekat alxuraan bu mag la woon soxla naa gis sëriñ bi di fa demal boppam ba ay gone soxlaa gis sëriñ bi ñëw ci moom ne ñun day jaxate dañoo bëggoon te ña nga booy jëm Touba la booy bëgg a àgg ngaabu gone ñëw ne ko dañoo bëggoon a siyaare ku baax ki mu leen lu ngeen yor ñu ne ko dara mu leen yéen mu leen koo gis su ngeen yor kaamil day moom su ngeen di àgg di ko gis gone daal dégg loolu dem mott li seen alxuraan bind kaamil yu rafet ñëw ne sëñ bay jaxate dañoo bëggoon a gis sëñ mu ne lu ngeen yor ñu ne ko dox leen ñu dem ngeen wan ma ko déglu deqa bi dafa am sew-sew néewul kaay leen ma leen ko dafa ne ko yéen ñu yori kaamil yi dox leen ñu dem ngeen wan ma ko ñu jiit le jóge xuru mbàkke téléphone amul benn message bu mën a jiitu ci njaareem amul te biñ daataan ak Sëñ Tuubaa génn ñaar yoon ba ñett ni ana gone yi jóge xuru mbàkke kaamil yi ba jaxat ne tëll rek la toll ku baax ki tëll mu ne waxoon naa leen ne a koy won kaamil yi la yëg kooku muy sëf sëriñ borom waaxu mu tàng la yow ma topp ci ginnaawam nag boo tempee mu raw la Cheikh Saliou Mbacke radiyallahu daan wax naan sëñ tubaa kenn mun a mel ne moom waaye ki koy jéemarooy dana ko tane ki ko jéemut kenn nag mënut mel ne moom. waaye nee na ki koy jéem dana ko tane ki ko jéemut daana waxit na ab taalibe moom akub sëriñam ñoo bokk war-war jaamu yàlla jàng jëfe daa nag seytaane ñëw ci mën nopp taalibe naan ko yow yow mi ngay ab taalibe rek yow koy waroo jaamu yàlla yow waroo jàng yow waroo yow waroo yu jeex. neen loolu pexem seytaane la te sëñ mi ko wax nag nee li ëpp ci yoon wi liñ ci dolli moo ëpp li ci li ci ne woon liñ dolli ci yoon wi dafa bare bare bare baree bari ba ëpp li ci ne woon daana waxit ne damaa xam yoon wi ndax nekk naa feek boroom yoon wi fukki at ak yaar keneen ku yor yoon wi man ak yow ñoo fi bokkoon nekk kon nee dafa xam yoonu murid waxul na da bokk parce bokk daa bokk te xam mu ne moom nag daa xam yoon wi ndax nekk na fekk boroom yoon wi fukki weer fukki at ak yaar mu door a làqu te keneen ku yor yoon wi ku nekk moog yow bokkoon nekk te laa biir la woon la laa biir la woon jëmmi toog ak jëmmi ju mel ne man mii daana fanaane wax ak ñun yu bari yoo xam ne boo ko waxoon ci biir mbooloo mi dañ koy wedd parce que murabbi la cheikhul murabbi naasix la war a nekk ab laabirekat la war a nekk dafa bokk ci laabiire nag nit ki lépp lu koy amal njariñ di ko yee ci diineem di ko yee ci addunaam nga di ko wax sur loolu lu mu lay loolu mu doyee nit luñ koy doyee bu bu weesoo xel moom la mën a yokk te xel moomu diinee ngi ci addunaa ngi ci su boobaa jaro yonent bi saa salaam nee na nit ki saa yu xëyee ñaari ñaar ci ñaar lay xëy ñaar saa yu sëppee ay tànkam ci ñaar rek lay xëy ñaar yooyu comme dajal nga fajal ko ko yowee waaja mooy diineem ak maanaam addunaam ak ëllëgam adduna ji li ngay lekk ak naan la ëllëg li ngay jaamoo la su ko mooyee rek nee na woo ko dara demal mu dem loolu waral na nag kon bokk yi njàngum alquran lu mat a jàpp la ci nan fexe ba sa doom jàng lu am solo la imaamul Xasaali mi ngeen dégg Abu Hamid Muhammad al Xasaali mu ngi fi bàyyi ko 505 ci gàddaay gi kon yàgg na baayam jaaykatub mercerie la woon mercerie noonu ko mën a waxee xës dama laa bëgg a andil rek wayjur wu dogu ci doomam am xam-xam ni mu koy waajalee bàyyu xasaal yi bu xëyee day jaay ba am dépense yóbbu ca kër ga la des ca poos ba mu topp ñiy jàngale bu gisee borom xam-xam mu déglu ko mu wax mu jooy ba ne sip yëkkati ci lam yoroon jox ko daal ne yàlla na ma yàlla may doom ju mel nii bu gisee borom alquran mu déglu ko mu jàng mu jooy ba ne sip daal di yëkkat la mu amoon la desoon ca ci alal ji jox ko ne yàlla na yàlla may doom ju mel nii. di ko def di ko def bay bëgg faatu xasaali ak Mouhamed rakk ja toll ci jàng ba sori dane maa ngi nii di faatu ñu ne ko waaw mu ne waaye su ma fi jógee bàyyi naa fi temps as nañ ma ko fayale sama doom ji mu jàng su jeexee nañ jaay sama place bii ma yoro yor la ko sama doom ji mu jàng su jeexee nag bàyyi naa leen nag yàlla daal di faatu lam yoroon ñu dépensé ko ba mu jeex ñu jaay cantine ba ba muy bëgg a jeex rek buur daal di inscrire xale yi buur ba jël xale yi daal di dugal ci madrasa nizamiya école publique ñu continuer jàng kenn ka mooy xasaali borom xam-xam ba la góor ga doon jooy naan yàlla ma yàlla may borom xam-xam bu mel nii mooy xasaali Muhammad mooy rakk ja lam doon jooy naan yàlla ma yàlla may borom xam ah, alxuraan ju mel nii mooy rakk ja kon nam ko ñore woon mu daan ko sàkku daan ko jaral jooy daan dépensé alalam ca la ko sunu borom joxe ñaari doom yooyu nga xam kenn gënu leen kenn mënu leen yar mooy point bu mujj bi ku ko deful da nga ko gis dafa am boor bu falu benn waay ñëw di ko nuyu si mu ne ko waar ma mu ne ko danga ngaa bëgg ma waar la ci li ma dégg wala ma waar la ci li ma gis mu ne ko waar ma ci li nga gis mu ne ko diw sàngam daa amoon fukki doom ak ñaar mu ne ko waaw mu ne ko mu am douze millions mu ne ko waaw mu ne ba muy bëgg a faatu 4 millions yi ci lañ ko jëndal bàmmeel 5 millions ci lañ ko ñaanal ma des ñaata 3 million 3 millions yooyu lañ lañ séddale douze douze yi amuñu dara mu ne ko waaw mu ne ko baax na jàppal diw bi muy faatu bàyyi na fi douze milliards bàyyi fi doom <clears throat> gannaaw bu génnee liñ koy ñaanale ak liñ ko jëndale bàmmeel lépp dese na douze milliards ki fi bàyyi woon douze million yi te gi te bi muy faatu ñu jël neuf yi ñu ne ko ah, yow lii lii loo jublu mu ne duma fi bàyyil ay gone alal yu ñuy pasar pasare laa man def naa ko yóbbu naa leen ci daara ji ñu jàng ba mokkal yóbbu naa leen ci xam-xam ba ñu jàng ba am xam-xam yar naa leen li ma man su ma fi bàyyi koo nag yàllaa ci des ku ci góor góorgóorlu ci ñoom dara weesut waaye duma fi bàyyee alal ju ñuy pasar pasare buur bi ne ko waaw mu ne ko gis nga kookee waxoon loola bi mu faatoo bi ñu defee avant ñuy def cinq ans déclaré nañ guerre guerre boo xam ne doomam yi téeméeri fas lañ doon participer ak ay milliards yu dul jeex ci biir guerre bi. te seen baay 3 millions yu 12 personnes bàyyi ma maanaam mbokk la fi bàyyi woon la moo xam ne kon bàyyi naa leen ak alxuraan akub yar li feeg ña nga lu ñu bëgg daañu ko am ñooñu am nañ ko. mu ne ko waaw mu ne ko 12 milliards yi nag ne ko borom 12 milliards yi bi mu faatoo biñ def 5 mbooleem goneem yëpp a ngi ci biir marché bi kenn ku nekk ñu naan la lu ma yóbbu ci kër ga laa bëgg ndax lan defe woon na ne bàyyi fi alal reewal sa doom xamadil ko mu ñàkk a jàng la loolu moo feeñ ci ñoom fukki goneeg ñaar yàq nañ 12 milliards ci lu fukki goneeg ñaar créé nañ 12 milliards ci lu ci lu matul 5 ans gone daa ya jaaroon ca daara ja ñu yar leen defar leen bi seen bàyyi ne làqoo ñoom am nañ 12 milliards yoo xam ne ñoo ko moomul seen bopp gone seen baa yërul teguñ leen ci yoon nag ñoom ñàkk nañ 12 milliards yoo xam ne ñoo ko xañ seen bopp mbokk yi kon yar rek moo am solo boo amee sa doom defar ko yonent bi sa salaam nee na ma naxala walidun waladan afdalu lahu min adabin xasan way jur joxul kado doomam lu gën a rëy teggin yu rafet yar sa doom mooy lépp yar sa doom mooy lépp لنفترض دائما المسألة تكون افتراضية ñu seet ne xaalisu ngordu bi fi nekkoon ku ci bàyyi loon sa doom tey 20 milliards lu mu koy jariñ muxtaar wuldu adda ba ngeen fi xamoon ku ci bàyyi sa doom ay milliards lu mu koy jëriñ tabaxin wu yàgg woowee ngeen xamoon ay sëngalëg ay ay ay bardage ku ci bàyyi loon sa doom ay milliards lu koy jariñ yooyu yëpp day amul benn njëriñ day weex day xeew wi lenn képp dul xewi muy ab yar yar ba Aboubacar yaru woon Omar yaru ko Ousmane yaru ko Sëñ Tuubaa yaru ko mooy sun bos bii ba tey wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyiduna wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi fi daje asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu kilifa yu tedd yi ñu fekk ci jataay bi di leen ziyaara di leen baalu àq bu baax a baax a baax ci kàddu yi ñuy yëkkati ci seen kanam dañu fi ñëw teewal fi le docteur Mamadou jiite muy maire commune Thiès Ouest bii nga xamante ne ni dafa dogal yàlla dafa dogal daara Serigne Saliou Mbacké bi nekk ci biir commune am te moom mi nga xamante ne ni moom mooy docteur Mamadou Djité di maire bi yàlla dogal muy doomu daara ay appellation wu maire xëy na dafa ñëw après fekk mu doon doomu daara ba pare ci suba ba tey nag yàlla xam na ni ñu ngi jokkoo ak Babacar ñu nekkoon ci ay activité ñëpp xam nañu maire yi moom weekend dafay chargé ba mu ëpp comme comme moom nekku fi dafa génn ñun ñii di se ak ay adjoint mu ni ñu dem leen ngeen teewal ñu ci jataay yi mais jataay bii dafa am particularité pour man xëy na tubaab mooy faral di wax ni la hasard n'existe pas ndax alxuraan képp kuy jullit ni ko sang bu tedd bii waxe dafay sa cëslaay di itamit sa référence parce que xëy na ñun ñi jàng tuuti ci daara yi nga xamante ne nii daaray nasaraan la dañ lay jox ay exemple ñoo xam ni seen ne sont pas des références yi ñun tandis que ñun senegal dañu am particularité am ay mag yu baax yu dëkke woon dëkk bii ñu mëntee tudd kenn rek tey muy sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu à travers le Coran à travers Al-Quran ñu réussir lépp lu ñu réussir loo xam ne ñi ñuy siteel comme ay exemple réussir wuñu ko yaakaar naa ni Serigne Touba taggul woyul kudul Al-Quran tàggul woyul lu dul sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni moom moo doon référence am kon suñu yàlla defee su yàlla defee sutura senegal gii dama koy faral di wax ci fu ma toog li ko traversé mu existe ba tey traversé na réew yu ñu ëpp koom-koom ñu faxtaay li traversé senegal ci at yi ñu génn Sénégal nekk di senegal traversé na ay réew yu ñu ëpp koom-koom faagaagal leen loolu nag li ñu ko may du dara du koom bu bari du yaatuwaayu dëkkuwaay waaye mag ñu baax ñu dërun fi ñu waroon a dër la donc occasion la pour événement yu mel nii ñu montrer en exemple suñu référence yooyu li tax ma wax jataay bi man dafa xaw am particularité ci man kii ñu tudde daara ji muy Serigne Saliou yàlla def en 98 ñu affecté ma Touba comme chef d'agence su Salama assurance ma xaw a dundandoo ak Serigne Saliou mais yàlla def sama directeur général bi may affecté Touba daf ma yóbbu teg ma ci loxo soxna May Kabir soxna May mu mag ma dund ci biir këram ab diir ndax bi may dem Touba j'étais encore trop jeune ndax tout juste ma génn école des assurances rek moo sama première poste d'affectation c'est Touba mais li ma façonné li ma façonné ci Serigne Saliou ak noo mën a day ak daraja bu mën a am ak noo toll bu jóge waan këram gi nekk ci ginnaaw jumaa ji jëm jannatul maxwa ak noo toll da ngay wàcc sées bi nga toog toog ci suuf benn bés comme que damay doog a egg si Touba loolu maîtriser wu ma ko ñu toog ci buntu bureau bi ñun ñëpp di waxtaan personnel bi mais Serigne Saliou egsi ak oto bi rek ñëpp ni groupe ci suuf man rek ma des ci saisi bi sëriñ bi rombee dem ma ni leen mais yéen lii bu amee da ngeen ma koy wax parce que man gan laa loolu marqué ma ci existence su Serigne Saliou mais bi nga xamante ne ni moo ci gën a rëy soxna May dafa xëy ni ma fii nga nekk danga fi wéet. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jàngal ne ñu xulil xaqan walaw kaana mura da ngay waaj ma yóbbu la teg la ci ay loxo xëy na foofu soo fa demee di nga xaw a gën féex di nga xaw a gën a firi ndax di nga gis ñoo ñoo nekkal mais fii dafa daaraa ba mu ëpp muy benn àllarba ma xëy liggéeyi wàcc bi may ñëw maa ngi ko fekk mu julli tàkkusaan ba toog mu ni ma kon nañu dem ma yóbbule fi ma lay yóbbu keroog mi ngi dugg ci Mercedes bawolam bu gris bi ñu ànd mu nekk ci kanam ma nekk ci ginnaaw elle était tout de blanc vêtue parce que le blanc c'est un symbole de pureté nga xam ni nit bu sellee day sell ba ci ay jëfinam ñu dem kër Serigne Saliou moo tax damay faral di wax mais collègues de service ak ñi nga xam ni dama dëkk ak ñoom ñuy jonjonte ci wàllu diine ma ni leen man étant talibé cheikh am naa ci yoonu murit lu murit yu bari amul di leen ko tooñe te muy dëgg te it ci laa seetloo ci sama scrutus jataayu jataayu fukki at ak ñaar yi ma def Touba fàttalikuwuma ci macha allah car fu ma xëyee dellu ginnaaw fàttalikuwuma ci fu ma xëyee am un pas en arrière ci côté professionnel ak lépp nag bi ñu demee ñu dugg kër Serigne Saliou soxna may jiitu ma topp ci ginnaawam keroog fekk nañ fa góor gu ñuy tudde Baye Jaw góor gu njool nii mu resevoir ñu ni soxna May ah yow de dafa mel ni sëriñ bi boobu ba tey daf lay xaar te soxna May annoncé wul dama bëgg ñu def benn benn genre takbir ci li nga xamante ni moom laay wax sëriñ soxna May avertirul sëriñ Saliou ni dafay ñëw bi ñu Baye Jaw recevoir li tax may wax sama yenn xarit yi ni leen am naa ci Serigne Saliou lu ngeen amul keroog Serigne Saliou mi ngi sol benn caaye bu bleu ñu baal ma ci wax ji ak benn grand bu boo xam ni waax la waax bu weex solul sous-vêtement jiitalul may jàkkaarloo ak ay karaw yu dënnam te solul mbaxana ma jàkkaarloo bopp góor yàlla gu tedd googu mu jàpp ci loxo soxna may ñoom ñaar kott kott yolli yolli ba ci njoowaan gi soxna may toog moom mu toog ci suuf man ma toog ci suuf baay Diaw moo ñëw déyante ak moom tuuti fekk moom ak soxna May ñu ngi échangeante ay mots te mots génn lu dul santante ziyaarante joxante cër ma toog ci suufu beñ bi di leen seetaan ñoom ñaar affaire bi doonoon ci man loo xam ne ba bu may nelaw dama koy rêver séance boobu ñu toog tuuti Baye Diaw ñëw déy Serigne Saliou ci la sëriñ Makhtar Mbacké bu sëriñ Abdou Lahad dugg si di sama morom keroog la sëriñ saaliwu sans soxna may wax ko yitte bi ko tax a jóg mu ne sëriñ saaliwu mu ne mu ne Serigne Saliou soxna may kon de xanaa sa yéene bi mat na. mu ni ko kon de xanaa sa yéene bi mat na man affaire bi am ceetaan la ma defoon. soxna may reetaan reetaan ji ju rafet ak sàkkara yàllam bi moo tax su ma koy nettali des fois dafay mel ni damay nekk ci benn émotion ndaxte lu mu dund la fekke ko daldi ni soxna may ki nga indi woon de pour teg ko ci ay loxo loxo yi nga ko war a teg ñëw na moo tax billaahi Sénégal dañuy font mais xamuñu li nu am li Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si radiyallahu taala andu waxoon ni réew mi ku fi dër te kañ yàlla loo fi ñaan yàlla mu may la ko li ko waral mooy mag ñooñu ñu yàlla sedde soxna may ne sëriñ Saliou kon de dafa mel ni dir bi mat na sëriñ Saliou ni kon na tàllal loxoom ñu ñaanal ko te Serigne Maxtaar yóbbu ko ndax xam naa ay yitteem moom keroog la Serigne wu tegal tàllal loxoom bu tedd boobu ku ma tegaloon fi mu nekk bic ak feuille ñu baal ma ci wax ji ma dessin loxo ba ni mu mel ci càllate ba tey dafa mel ni sa quelque chose qui est ancré à moi mu jël loxo soxna may teg jël sama loxo bu doyet bu tuuti bi teg ko ci jël loxo soxna sëñ Maxtaar teg ci tegaat ci beneen loxom maanaam moom ñaari loxoom ñëw tëj suñuy loxo muy ñaan di ëf di ñaan di ëf man ma mel ni ku ñu dugal ci frigo ci congélateur à 1000 degrés ndax xam góor gu tedd gi lan la symboliser ci réew mi ñu nekk et mu nekk xalifa cheikhul xadim ci kaw suuf mu daal di ni Serigne sa Serigne Maxtaar te Serigne Maxtaar këram mu nga ca jannatul maxwaa ca ginnaaw kër Serigne Saliou yaakaar naa ne bu dul caatu sëriñ Abdou Lahad ñi ko ci mag bariwuñ moom ak sëriñ Bas ñoom ñaar rek ñoo bokk ndey ak baay sëñ soxna Musli Lo moom mooy seen yaay. sëñ Maxtaar sëriñ Abdou Lahad Serigne Saliou ni ko na nga ko téye ninga nga téye na nga ko téye ni nga téye sa sa bàjjen bii sëriñ Maxtaar ni dina dina ma téye. ba ñu xam ni téye na ma sama doom juddu di taaw di sama taaw muy Fatou Kiné ma toog fi ma toog di waaj yëkkati sama téléphone pour woo sëñ Maxtaar soxna May mi nga xam ne moo doon soxnaam soxna May loo soxna May mu ne loo soxna May mu mag lañ ko tudde woo ma téléphone ni ma sëñ bi nee na daf la gëj a dégg boobu bi sama taaw di juddu dafa fekk ma feebar nekk Dakar mu ni ma sëñ bi nee na daf la gëj a dégg ma ni ko sëñ bi laa doon waajo woo ni ndax damaa am tuut tànk bu jigéen mu ni ma damaa jaayante woon ak Serigne Saliou ni sa lépp maa koy dox Faat ne boobu di sama taaw bu njugo mi mujjee juddu ku ci nekk sëriñ Maxtaar moo may jox nag ak xar te li ci ëpp ci ngénte yi li ma ko koy yëgal du bari mais après ay une semaine avant wala une semaine avant soxna si di mucc dinaa jokkoo ak Serigne Makhtar te jokkoo bi moom moo koy sàkku moo tax li tubaab di wax naan les âmes honnêtes ne se cherchent pas elles se mooy dëkk kon tey bu yàlla nattoo ma yàlla wërsëgale ma yàlla xéewale ma ma rot si ci jataayu daara joo xamante ne nii xale yi ñooy tari alxuraan ñu ne kan lañ tuddee daara ji Serigne Saliou Mbacké kon man maa ngi jonjonte ak source bi ba tey ndax dëpp mënoon naa rate jataay bii tey dëpp mënoon naa rate jataay bii tey kon fa tabaarakallaahu damay sant yàlla di sant le docteur Mamadou Djité maire de la commune de Thiès Ouest bi ma fi yebal permettre na ma ma waat ak source boobu di Serigne Saliou Mbacké ak kii éternellement sama dund moom laa koy jagleel malgré bien que physiquement Serigne Saliou bien que physiquement absent mais il reste à il reste et continueront toujours à vivre dans le cœur de leurs semblables te ñun ñi toog ci tànt bi ñëpp sont les semblables de Serigne Saliou Mbacké kon fa tabarakallahu oustaz ñu ngi bëgg euh, dinañu doon incha allah parrain ci école bi ndax xëy na lu ñu ignoré woon la lu ñu réeré woon la mais yàlla dogal na ci jataay Serigne Saliou om mat na ma ba teg ma fu ma ko mën a rendre hommage fu ma ko mën a delloowe njukkal fu ma mën a delloowe mbattu tandaala jour biñ ma jëlee tuubaa di ma affecté waat Dakar dama ni sëñ Maxtaar jóge naa àjjana maa ngi jëm safara mu ni ma bu ko waxati yow foo dem àjjana fekk la fa ma ni ko dama mun la ci àdduna nit ñu jëlee la Touba affecté ji la dakaar foo xamante ne ni da nga fay dund te doo teg sa bët ci bakkaar da nga fay dund te doo teg sa bët ci beneen diine bu dul diine sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy islam boobu dëkk bu ñu la fa jëlee tooñ nañu la mais xëy na c'était le destin mais yàlla def na Serigne Maxtaar boobu jour bi ma génnee man ak Serigne Saliou kër la teg ci sama loxo kër goo xam ne dañ ko tabax ba mu egg mar bu ko boo ñëwee daaru mar soo weesoo euh, euh, euh, arrondissement bi jàkkaarloo ak kër Serigne Khadim Mbacké ndax kër Serigne Khadim Mbacké ak Salama assurance bi ñoo jàkkaarloo man maa fa nekkoon comme chef d'agence soo jógee kër sëñ arrondissement bi dem di nga romb benn station benn pompe à gauche boo jàddee ci jàkkar ju ndaw jooju am na deux maisons jumelées benn bi la sëñ Maxtaar yëkkati ci loxoom jox ma caabi yi ni ma kër gi ba ba nga fiy jóge ci àdduna wala man ma fiy jóge ci àdduna ci lañ koy delloowante bi ma ubbee kër ga dugg fa damaa fekk lal salle bi ñu mëble ko fekk fa lépp luy commodité bu nga xamante ne ni nit ku nite war na faa mën a dëkk kon man ñooñu lan laa leen war a mën a fayee kon fa tabarakallaa yàlla na yàlla tas ci barkeem moom Serigne Saliou yàlla teg loxoom ci barkem moom ci xale yi nga xam ne ñoom ñoo jànge ci daara ji yàlla kattanal oustaz bi nga xam ni ak oustaz yi nga xam ni ñoo nekk ci daara ji di jàngale di nuyu sang bu tedd bii bu baax a baax a baax vraiment bu ñu sañoon wala ñu génte woon ko nii événement yi ñu njëkkee te yàlla xam ne ay événement yu événement yu événement mi ñuy xaar tey Babacar daf ma doon wax léegi ni ma monsieur le maire xam naa 30 à 15 minutes rek nga def ko fi ndax xam naa ne le destin vous appelle ailleurs ma ni ko mais bu ma géntoon ni daara jii Serigne Saliou lañ ko tudde tey dama doon sursoir activité yëpp yëpp boobu maire ñëwee mu rëkk sama ndigg mais yàlla baax na eh, yoon yemul ci benn. bëgg nañu trop trop trop trop ci teewaay bi nga xam ne moom lañ fi teew te incha allah bu ñu fi jógee ci ay fan yu néew daanu fi dellu si te dina am taxawaay bu nga xamante ne ni dinañ ko taxaw ci daara ji parce que dootul problème mu maire mais sama problème man la personnellement ndaxte sama diggante ak Serigne Saliou surtout nag sama diggante ak sëriñ Makhtar waaye surtout sama diggante ak Soxna May surtout nag particulièrement sama diggante ak dëkk boobu di Touba wa ma zalika ala allahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activé cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service di Saint Coran